dire euh, réaction officielle venant du patron du football sénégalais Augustin Senghor qui est en ligne président ñu ngi lay nuyu. Cher euh, Cher Allô Allô, oui oui oui président c'est Cher Tidiane Diagne. oui oui Cher Tidiane. ça va Augustin. ça va santé yàlla. mais bi Sénégalais par rapport à cette blessure annoncée et même ce forfait annoncé de Sadio Mané écoutez euh, en tant que fédération euh, ñun euh, li ñu war mooy xaar en fait notification officielle buy jógee ci équipe am maanaam médecin ami. donc depuis démb ñu ngi suivre mbir mi xamoon nañ dañu dafa gaañu donc jéemoon nañu xam li xew ñu nañu foog ñu xaar ba tey ba am position officielle département médical bu Bayern moom la ñuy déglu amaana xibaar yi tam Euh, duñ ci yee yàbbi parce que euh, lu mën a nekk la euh, démb amoon na tam yeneen xibaar yu tënnoon ne mbir mi taxut ak koon garaaw noonu mais mm-hmm. yi am solo rek ñun en tant que fédération jamono ji ñu toll ni nga xam ne entraîneur bi dafa waaj génne liste am il faut ñu am information yu wóor. Mhm. balaa ñuy xam ban doxalin lañuy taxawé dal daal. justement ah, daal mooy kii mais peut-être avant cette cette déclaration officielle du Bayern Munich est-ce qu'au sein de la fédération n'y a-t-il pas cette possibilité d'entrer en contact avec euh, Sadio Mané euh, pour avoir une idée de ce qui se passe exactement. Oui, mais, mais Sadio Mané, c'est un joueur, c'est pas un médecin, je suis désolé. Euh, li ñuy wax ak Sadio wala ñuy wax ak entourage am ñu ngi koy def. Mhm. Donc loolu du problème du budul man sama vice président Ablaye Sow ak euh, coach beeg yëpp euh, jël nañu information yi démb mais balaa ngay yee yàbbi nga xam lu maanaam. Euh, effectivement mbir yi tëddee. donc mm-hmm. te loolu domaine bi ñu nekk domaine de spécialité la. Mm-hmm. lu docteur waxul. Mm-hmm. ñun duñ si yee yàbbi. parce que tey joueur bi bu buñ ko convoqué. club bi bu fekkee dafa xalaat ne dafa forfait daf ñuy envoyé maanaam xibaar bi. te bu weesoo loolu day day aussi. envoyé ñu dossier médical parce que FIFA FIS ak ak daf ñu ko may donc euh, ñun dañuy euh, taaxiirlu bañ a yàkkamti bañ a def ay déclaration intempestive ba xam euh, li nekk ci mbir mi là en ce moment là fédération dina def communication officielle te coach bi comme bu neex yàlla suba dina génne listam. di ci dañ ci gën xam lu leer. mais mais les délais sont trop courts en hein, président diggante suba que tey blessure Sadio Mané ak la publication de la liste pour vendredi. le délai est très court hein. am nañu yaakaar bu fekkee ne ci côté bi nee nañu ñu xaar ba tey tey jeexagul day doog a door. Mhm. donc dinañ ñu wax lu leer donc nañ jël décision bi war a jël. Mhm. dara terewuñu bu ñu amul lu leer ñu dugal ko suñu liste en attendant ñoom ñu wax ñu xibaar yi parce que euh, am nañu obligation bi suñu docteurs yi ak seen docteurs yi dinañu. entrer en euh, contact. am li nga xam ne euh, lan mooy tolluwaayu gaañ-gaañ bi lan moo am solo. xam nañ ne Sadio gaañ gaañu na. Mhm.

donc clairement bu dara amé itam sax ñakul ni dina am une contre-expertise pour voir exactement ah. ma contre-expertise mom clairement moom euh, ça ça se fera en principe pour voir si effectivement c'est ça ou pas en attendant d'avoir en tout cas euh, la déclaration officielle du Bayern Munich. du Bayern waaw waaye waaye terewul. Mhm. du dara parce que xam nañu ne mbir yi fu mu toll. Euh, Sadio ñu na ba tel na génn ci match bi té Sadio képp ñëpp xam nañ ko jàmbaar la bu génné rek xaj na mbir yi yombul. Mhm. et équipe nak xam nañ ko aussi. équipe bi nga xam ne euh, tey euh, boo amee euh, joueur bu mel ni Sadio Mané bu gaañoo tey nekk am solo lu diis si dinañ si jéem a maanaam gëstu bu baax parce que sànq loolu laa doon wax nit ma ne ko tey France bu yeewoon ñu ne ko Mbappé gaañu na sentiment bi waa tubaab bi di am moom la ñu am. effectivement Brésil bu ñu leen neewoon tam Neymar gaañu na tey tey tey defe naa àdduna yëpp ay tukki Brésil donc ñun tey foofu la ñu toll mais nañu dem ak dal ak xel. xam tamit euh, li am solo tay moy ñu nemmeeku mom fu mu tollu ñaanal ko mbir mi nek lo xam ne du nek lu diis ci mom té loolu bu amé défé na euh, ngëneel lay doon ci mom d'abord wala ñuy xalaat ñun suñu bopp wala ñuy xalaat équipe bi dañ ko ñaanal d'abord mom mu juk nu mu gëna a gaar. effectivement euh, président on le sait pas hein, mais au cas où on perd Sadio Mané c'est quoi les perspectives quel devrait être le discours quel devrait être le comportement de l'équipe et de l'encadrement technique de manière générale le comportement de découper euh, des coupé Voilà, je, veux dire, pour les perspectives, hein, pour les perspectives, si toutefois cette information s'avérait vraie, alors euh, quel devrait être le comportement de l'équipe, quel devrait être le discours de l'équipe, de l'encadrement technique et même de la fédération pour, euh, madame, transcender, disons, cette mauvaise nouvelle, si toutefois elle se confirmait waaw bon d' abord comme ni mu ko waxee ñu ngi ñaan euh, mu bañ a confirmé wu déjà. Hmm, incha allah parce que euh, boo naree euh, passé wu de Sadio Mané lu diis lay nekk ci équipe bu mu munti nekk ci àddina si tey mais tamit si sport la ñu nekk sportif de haut niveau ak gaañu dafa xaw a ànd gis nañu ne tamit balaa ñun mu ñuy dal ni Sénégal dal na dëkk yu bare bare. France en particulier waaw en France en particulier mm-hmm. li am rek solo mooy que Sadio dafa nekkoon maanaam. benn joueur bu exceptionnel ci groupe bu exceptionnel. Mhm. dañuy am yaakaar ne coach bi déjà usage woon euh, ma li tubaab di wax scénario yëpp situation yi ne yëpp. Euh, dinañu xool peut-être ni ñu koy com euh, compenser. Mhm. parce que ku mel ni Sadio kenn du ko remplacer dañuy compenser rek. Mhm. compensation am tamit du du wéeru ci benn joueur bu ñu seet. ndax ah beneen Sadio amul fii Sénégal. amul ci àdduna si. donc dañuy xool. ci taxawaay naka la équipe bi loolu te def naa wàllu coach yi la. Mm-hmm. naka la équipe bi di euh, soppeekoo pour mun adapté wu ci loolu de temps en temps barewul nag mës nañu dal Sadio gaañu euh, euh, ñu joué sans moom. Mm-hmm. mais tey defe naa collectivement am nañu loo xam ne bu ñu ko tegee amaana absence Sadio dina feeñ mais dinañ ko maanaam tuuteel ba nga xam ne xëj na am nañu yaakaar performance yi ñuy yaas équipe yi ñuy xaar si équipe bi. Euh, alors euh, président on va pas trop vous retenir euh, parce que clairement il a fédération juste en français votre réaction après disons cette ce mmh. forfait annoncé de Sadio